di wax ni nekk na lu am solo lu ñu yàkkamti woon la euh, ndax boulanger yàgg nañ ci liggéey ak DER ak ministère du commerce tey jii la ko yàlla dogal waaye di tamit di kontaan nag ci euh, partenariat bi nga xamante ne moom la ministère du commerce am ak DER ndax bu ñu fàttalikoo tamit daaw am nañu initiative bu ñu lancé woon ci wàllu mburu mi toujours initiative jaay ma mburu liggéey bu am solo sax ñu ngi ko ciy def toujours ak euh, surtout le boulangers ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ŋànk waaye ministère baa ngi ci jàpp bu baax a baax ndax mu mën a dox ca kanam ndax dañoo gëm ni secteur bi dafay secteur bu am solo bu ñu war a euh, dimbali mu gën a jëm kanam ndax secteur la boo xamante ne lu muy jël ci ay li muy créer ci emploi euh, néew na nga gis ay secteur yu koy créer ndax bu demee bay ci ay trente mille personnes mu dem bay am chiffre d'affaires bu toll ci cinq cent milliards donc secteur boobu du secteur bu ndaw te ñu yaakaar ni buñ ko jàppalee euh, buñ ko jàppalee bu baax a baax dina gën a dem ca kanam surtout ak valorisation céréales locales ndax gis ngeen ni léegi fu ñu toll rek ñu ngi wax euh, valorisation des produits locaux consommation des consommation locale donc dañ leen bu ñu leen jàppalee dinañu gën a dimbale ci loolu donc looloo tax ñu koy rafetlu waaye di fàttali ni tamit financement bi financement la prêt la nekkul loo xamante ne dañ koy mayee donc ñun ñëpp rek nañu góorgóorlu euh, surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci bénéficier wu bu ñu liggéeyee te yal na yàlla barkeel lépp bu ñu liggéeyee ñu mën a rembourser ndax nag bu ñu ko remboursé wul daanaka dafay gàllankoor ña ca des ndax nag crédit moom fay la sant waaw mais bu ñu fayul non seulement euh, banque yi dootuñu amati courage euh, abal kenn waaye tamit yeneen entreprise yi nga xam ne ñu ngi taxaw di xaar xëy ak appui bi ci war dootuñu ko mën a am donc dañuy andil gàllankoor suñu économie moo tax nag ñun ñëpp ñoo war a xam ni lii xaalisu euh, état la xaalisu euh, entre sénégalais yi la donc ku ci nekk rek euh, dangaa war a góor góor lu def sa kettu lay kattan ba xaalis bi nga xamante ñun ñëpp a ko bokk ñëpp bën cee bénéficier di réitérer encore suma disponibilité vraiment ci secteur bi secteur bi nga xamante ne moom mooy secteur boulangerie ndax encore une fois euh, defe naa dootuñu ko jaratuñu koy wax xam ngeen bu baax a baax fan la fan la tollu ministère bi ndax am naa temps bi nga xamante ne moom lañuy ñuy consacré euh, ci filière bi néew na ay filières yu bénéficier autant d' attention de la part du département